boo xam ne bu ñuy faral di fàttalente la ndax day cëslaayul diine te mooy al iman billahi subhanahu wa di gëm yàlla ak wéetal ko gëm yàlla wéetal ko ci jëmmam wéetal ko ci ay melokaanam wéetal ko ci ay jëfam def gëm yàlla ci xol yi saxal ko ci suuxat ko ci naka jëkk mooy yittey mboolem ku yàlla mosa yónni ci doomu aadama yi mooy yitte ji ci jiitu mooy yittey mbooleem nit yàlla yi nga xam ne suñu boroom da leen tànn jagleen leen ñu war a yeesal diine ku mos di liggéeyal diine rek ponk ba jiitu mooy suuxat ci xoli jaam ñi gëm suñ boroom nangul ko wéetal ko ndax lépp lu nit am ci lu koy jariñ ci pas-pas bu wér bu dëgër ci la ko ame waaye lépp loo xam ne doomu aadamaa ngi jànkoonteek moom ci kaw suuf ci ay coono ay naqar ay metit la ci ëpp ci ñàkk gëm yàlla wala pas-pas bu ñàkk wér bokk na ci li ko jural gëm yàlla googu nag bu ne imaan mooy ponk wala xaaj bu njëkk ci xaaji diine yi nga xam ne ñett la mooy liimaan lislaam lihsaan liimaan mooy gëm gi mooy nekk ci xol bi lislaam mooy jëfe ndigal yi ak bàyyi tere yi mooy di suñu borom subhanahu wa rëdd nit ki jaar ca lihsaan nag mooy rafetal ko sellal sa xol ba looy def suñu borom subhanahu wa taala nga cay gis moom nga cay jiital gëm googu nag moo am ay ponk moom it te ponkam yi ponk ba ca jiitu mooy gëm yàlla ci boppam gëm ay malaakaam gëm ay yonent yi mu yónni gëm téere yi nga xam ne moom la wàcce gëm bis penc gëm ab dogalam kon ponk bi jiitu mooy nit ki gëm nangul nangu ne am na ku bind suñ boroom subhanahu wa la moo bind jaam ñi moo bind àdduna bi ndax am na ñoo xam ne suñ boroom jox la leen jox na leen am ruux ak ruux jox leen am xel cëral leen te nanguluñ suñ boroom subhanahu wa taala gëmuñu ne am na ku leen sàkk lépp dañ dañ koy delloo ci ne àdduna bi naka jekk bu su fee jóg amul ku ko bind moo fi mas a nekk kon am na ñu gëmul yàlla kon ponk bi jiitu mooy gëm ne suñ boroom am na mooy ki bind ko defee la aju ci gëm googee ci ay melokaanam nit ki gëm ko waaye gëm ne am nay malaaka yu muy yum sàkk ñuy ay ndawam di jëfe ay ndigalam ca duñ ko moy ndax loolu it am nañu ko gëmut gëm téere yi téere yi am na ñoo xam ne gëm nañ yàlla waaye dañuy wedd weddi yonent yi wala buñ gëmee yenn yonent yi duñ gëm yépp waaye gëm ne ëllëg subhanahu wa taala mi bind doomu aadama yi dana leen taxawalaat ëllëg ci kanamam àtte leen muy bis pénc loolu am na ci jaami yàlla yi ñu ko gëmut gëm ne moo moo mooy dogal lépp lu am ci dogalam la ame lépp lu am da koo soob yooyu mooy ponki gëm gëm yàlla nag ci xol lay nekk waaye nit ki da koy wax ci làmmiñam di ko jëf ci ay cëram ku gëm yàlla gëm yàlla gi war naa feeñ ci sa jëflente war naa feeñ ci saw nekkiin ci àdduna gis nañu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci ay jàngaleem muy faral di wax ne ku gëm yàlla gëm bis nay def nàngam muy jëf yu baax yoo xam ne kon gëm yàlla ku ko def war ngay jëf-jëf yu baax am na ci xadis boo xam ne da ciy wax ne man kaan yuminu billahi wal yawmil axiri fal yaqul xayran aw liyasmut wa man kaana yuminu billahi wal yawmil fal yukrim jaarahu wa man kaana yuminu billahi wal yawmil am na beneen xadis boo xam ne bokk na ca fal yasil raximahu kon ku gëm yàlla gëm bis nay wax aw yiw walla mu noppi ku gëm yàlla gëm bis nay teral ay dëkkandoom ku gëm yàlla gëm bis nay teral gan ku gëm yàlla gëm bis penc nay jokk ak bokkam sëriñ tubaa radiyallahu anhu ci majmuwa ba ba muy saraa xadis boobu dafa wax ne wa man amana billaahi ku gëm yàlla dana gëm ne lépp loo xam ne jëf na ko walla mu wax ko suñu boroom xam na ko wa man amana bil yawmil aaxiri ku gëm bis penc dana gëm ne suñu boroom dana ko fay lépp lu mos def ci àdduna ci ak àllaaxira nee na ku xam loolee nag fal yaqul xayran aw li yasmut an char ku xam loolu na wax aw yiw walla mu noppi ci aw ay kon gëm yàlla day feeñ ci ay cër nit ki da koy du lu muy wax rekk gëm naa yàlla waaye day def lu baax li ko suñu borom subhanahu wa taala di digal moo tax mooy yàlla wala yaazu billah ñàkk gëm dina ko waral ak ngëm gu woyof dina ko waral te loolu alayhi salaatu wassalaam wax na ko bari na mooy yàlla gu nit kiy def te la ko waral mooy ak ñàkk gëmam yàlla yonent bi nee na ki nga xam ne mi ngi njaaloo waliyaasu billah yàlla na ci yàlla musal waxtu wa muy njaaloo neena gëmut kii sàcc waxtu wa muy sàcc gëmut kii naan am ñollu waxtu wam koy naan gëmut loolu boroom xam-xam yi dañ koy firee ne mooy ak gëmam matut laa yazni azzaani xiina yazni wa huwa mu'min wala yasriqu saariqu xiina yasriqu wa huwa wala yashribu alxamra xiina yashribuha wa huwa mumin kon gëm yàlla day def ci nit ki di topp ay ndigalam ak di moytu ay tereem te topp ndigal ak moytu tere mooy al imtisaalu wala jitinaab mooy dëgg-dëggi ragal yàlla gi nga xam ne mooy tax nit ki doon xejjub suñu boroom subhanahu wa taala ñu am ay daraja ci suñu boroom nekk ay awliya u la leen ko may mooy gëm yàlla gëm yàlla googee jural leen ñu ragal ko di jëfe ay ndigalam di bàyyi ay teram ba suñu boroom tànnal leen boppam def leen ay xejjam moo tax mu wax ni àla inna awliya allahi laa xawfun alayhim wala hum yaxzanuun alladina amanu wa kaanu yattaquun kon xejji suñu boroom yi subhaanahu wa amuñu lu ñuy jàq amuñu lu ñuy tiit fañ jëm amuñu lu ñu fa ragal waaye amuñu lu ñuy tiit ci liñ bàyyi seen ginnaaw kon gëm yàlla day jural nit ki jëfe ay ndigalam ak bàyyi ay tereem waaye di ko jural mu jege boroomam subhaanahu wa taala bokk ci ay xejjam yàlla nañu ko yàlla defal kon lu ñuy jëfe la moo tax subhanahu wa taala digg na lu bari loo xam ne ku gëm yàlla ba noppi gëm yàlla ga feeñ ci say cër askan wu ñu bari ba askan wa nekk ñu gëm yàlla suñu boroom am na lu mu leen cay defal ni muy fayee kenn ku gëm yàlla mbooloo mi buñ gëmee yàlla suñ boroom am na lu mu leen ca dig bokk na ci lu suñ boroom dige mooy ñi gëm yàlla suñ boroom dina leen dooleel dana leen def ñooy mujje suuf si ca it li nga lépp loo xam ne lu ñu ragal la suñ boroom dina leen ko teggil mujj am kóolute dana leen dëgëral ci seen diine loola dël la bu suñ borom subhanahu wa taala dël jullit ñi su fekkee ne gëm nañ yàlla waaye gëm googee mu bañ a doon ay wax mu doon lu ñuy jëfe ci seeni cër waada allahu alladina amanu minkum wa amilu lsalihati la yastaxlifannahum fi l wala yumakkinanna lahum diinahum alladi irtadaa lahum wala yubaddilannahum min baadi kon tamkiin mooy suñ boroom dooleel jullit ñi ci kaw suuf jox leen kóolute ba duñu am lenn lu ñuy ragal loolu gëm yàlla moo leen koy may waaye gëm yàlla dana leen def dana defal barke nit aw nit bu gëmee suñu boroom subhanahu wa doy loo ko di jëfe ay ndigalam di bàyyi ay tereem suñu boroom mën na wàcce barke ci ñoom walaw anna ahla alqura amanu wattaqaw la fataxna alayhim barakatin min alsamaai wal ard waaye it suñ boroom subhaanahu wa taala na ndimbalam ndimbalam ci jullit ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla saa bu ñu tiitee saa bu ñu jàqee suñu boroom dina leen gàttandu ndimbalam akuk jàppaleem wa kaana xaqan alayna nasrul muminin kon gëm yàlla lu ñuy fas ci xol la waaye ay jëf moo koy jëmmal moo tax alayhi salaatu wasalaam doon wax ne gëm yàlla ay banqaas yu bari la juróom ñaar fukk ak lu topp ba ca jiitu mooy laa ilaha illa seede ne amul benn buur bu dul yàlla fas ko waaye ba ca gën a suufe mooy fekk aw yoon lor nekk ca juy gaañe nga dindi ko mu teg ca ne kersa bokk na ci bànqaasi gëm yàlla loolu li muy tegtale rekk kon gëm yàlla lépp loo xam ne lu baax la li nit ku lu nit ki di def loola day bokk day màndargaal pas-pasam ci suñu borom subhaanahu wa day màndargaal ak gëmam yàlla gëm yàlla googu nag daraja ci gën a kawe mooy fexe ba wéetal ko wéetal ko ci jëmmam mooy bañ ko bokkaaleeg kenn bañ ko bokkaaleeg lenn waaye wéetal ko ci ay melokaanam yi nga xam ne moo ko jogoo moo ko melowoo waaye wéetal ko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

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول sunu wéetal suñu borom subhanahu wa ci jëmmam jàpp ne benn buur rekk moo am melokaanam yi nga xam ne it moom la melowoo moo ko jagoo waaye ay jëf it lépp nga delloo ko ci suñu borom subhanahu wa taala loola daraja ju kawe la joo xam ne ju jafe yegg la ndax wax ne gëm naa yàlla léeg mu yomb wax jëfe ay ndigalam di ca góor góorlu waaye àgg nag ci nangu ne jariñe ak lore ci suñu boroom rekk la nekk loolu moom daraja ju kawe kawe la sëriñ bi nag moom njàngale mépp rekk yaram bépp rekk loolu la doon def ci jullit ñi loolu la doon def ci mbindeef yi àgg ci wéetal suñu boroom wéetal goo xam ne moom rekk ngay nangu mu mën a jariñ mën a lore waxoon na ne ki nga xam ne dafay bëgg ngërëmul yàlla bu jógee la mu war a njëkk a yóbbaloo mooy tawxiid xam suñu boroom subhaanahu wa taala ay melokaanam xam li war ci moom ak li jomb ci moom ak li dagan ci moom moo taxoon mu waxoon ne awalu waajibin ala al muridi taxsiilu zaadihi min at tawxiidi tawxiid boobu nag nga xam ne dangay àgg ci ne jariñe ak lore ci suñ boroom la nekk loola sëriñ bi da ko jàngale fu ne bokk na ci li muy wax ne an nafu wa durru min al wahaabi laysa min al aadaai wal ahbaabi ne jariñe ak lore ci suñu borom mi nga xam ne mooy maye rek la nekk la mën a jóge waaye mënut a jóge ci say noon luñ la bëgg a bëgg lor te soobul suñu borom mënuñu laa lor say soppe luñ la bëgg a bëgg jariñ bu soobul suñu borom duñ la mën a jariñ yàlla waxoon nag alayhi salaatu wasalaam ne ko innaka laa tahdi man ahbabta walakin allaha di man yasha wax ne an naf wa durru minal al jabbaari laysa min al abraari wal fujjaari ne jariñe ak lore ci yàlla mi boroom kàttan rekk la mën a jóge waaye mënta jóge ci ñi nga xam ne ay nit ñu baax lañ luñ baax baax mënuñu laa jariñ bu soobu suñ boroom nit ku baax njariñ la ci moom suñ boroom moo ko def ci moom bañ mën a jariñ ci moom ki nga xam ne ab kàccoor la lu mu kàccoore kàccoore mënulaa lor ca soobul suñ boroom ndax doole jum am suñ boroom a ko jox su ko neexee mu rocc ko kon dellu ci suñu boroom nangul ko ne mooy jariñe mooy lore wàccuwaay maqaama bu kawee la ci gëm yàlla euh, gëm ne lépp moom moo koy dogal wax ne an nafu wa durru min arrahmaani laysa min albidaani wa suudaani nee na jariñeek lore ci yàlla mi boroom yërmande la jóge waaye jógewul ci nit ku weex wala nit ku ñuul kon daraja jooju nga xam ne mooy daraja yi àgg ci xam ne yàlla moo lay jariñ moo la mën a lor loolu jafe-jafe la ndax bari ci jullit ñi ñoo xam ne seen ngëm danañ gëm yàlla waaye jàpp nañ ne jariñ lore ci doomu aadama yi la nekk ba tax nañ war a wéetale yàlla nañ war a saxe ci li leen yàlla digal ragal lu leen lor walla bëgg njariñ ci bindeef dana dox seen digganteeg loolee war seen digganteek seen boroom te sëriñ bi moom teeloon nañoo jàngal ne wa kullu ma asaabana lam yakuni yuridu an yuxti ana fi zamani nee lépp loo xam ne jot nanu dal na ci sunu kaw mooy yàlla moo bëggutoon loola mooy nu wa kullu ma axtaana lam yakuni yuridu an yusibana min mihani bépp natt boo xam ne teggi nanu yàlla moo nëmmutoon mu dal ci sunu kaw kon jariñe ak lore ci suñu boroom la nekk pas-pas boobu nag ku ko yàlla baaxe doo ko fàtte senn saa waxtu wu nekk danga sabablu def li ñu la digal ci mbir mu nekk mooy looy yóotu bëgg caa jot walla looy jañ loola yépp danga sabablu def la koy maye walla lay tax mu mooy la bu dee loo bëgg mu loo bëgg a mucc waaye nag nga fas ci sa xol ne yàlla la cay dimbale yàllaa la cay dimbale kon waroo fàtte suñu borom subhanahu wa mu nga xam ne moo lay dimbale ba yam sabab ya sabab yi waru fàtteloo yàlla mi nga xam ne moo lënkale sabab ak la muy sabab lépp lu am jeexit suñu borom moo moo ca def jeexit loolu loolu lanu sëriñ bi jàngal kon ki gëm loolu lu muy wut dana ko rafetal dana rafetal wutiin wa ni ko yont bi digle woon ne na ngeen ragal yàlla te rafetal seenu wutiin ndax mbir yépp ab dogalam lu nekk booy wut te xam ne yàlla moo lay may yow da ngay def la la war rek danga ko rafetal ndax danga xam ne boo ko ñaawalee te suñu boroom dogalul nga war a jot ca la ngay wut doo ci jot waaye boo ko rafetalee nag xam ne suñ boroom moom lañ la digal mooy sabablu waaye moom yàlla subhanahu wa taala moo lay eggali ci la nga bëgg loola it bu ko jullit bi fasee dana fexe ba dara du dox digganteem ak jaamu yàlla ragal lu ko lor walla bëgg lu ko lu ko jariñ du dox digganteem ak jaamu suñu borom subhanahu wa loolu nag daraja joo xam ne ju jafee yegg la yàlla nañ ci suñu borom subhanahu wa yeggale ndax barab daraja la joo xam ne ku ci ku ci ku ci yegg danga da nga noppalu adduna noppalu alaxira ndax ñàkk a nangul suñu boroom subhanahu wa taala jariñ ak lor coono bu nit am ci àdduna loolaa la ko teg lor ju dal nit tey ak ëllëg loolaa ko ko teg loolu la Sëriñ Tuubaa wax ci bayit wii ne man zanna gayra allahi yugni aw yadur fa zaaka fi daarayni zu kaddin wadur képp koo xam ne jàpp na ne am na kudul yàlla kuy jariñe walla muy lore kooku day na xam ne mu ngi ci coono bu metti ak lor ju metti ci àdduna ak alaaxira kon nag bayit woowu nga xam ne eh, sëriñ bi digle na ñu koy jàng jàpp nañ ne xamunu mbóot ya ca nekk de waaye képp ku ko teewlu ci sa xol subaak ngoon loola dana dana la jural tawxiid dana la dana dana suuxat tawxiid ci sab xol te tawxiid mooy lépp moom lanu sëriñ bi bëggal yeesal suñ pas-pas waxtu nekk ñi ngi dégg ci ay kàddoom yeesal pas-pas yi ndax ñi yàlla mosa tànn ñu yeesal diineem ji ci pas-pas la jiite lañuy jiital kon nag nu fas yéene bàyyi xel ndigal loolu waaye ñu fas yée di teewlu li nga xam ne moo nekk ci wax ji ndax moo nuy may jàmmi tey moo ñuy may jàmmi ëllëg dem ba suñu borom subhanahu wa taala la ñuy teg suñu kanam jàpp xam ne moom moo ñu mën a jariñ moom moo ñu lor moo ñu mën a lor loola dinañu musal ci bëgg ci mbindeef njariñ ba tax ngay def lu juyoog la la sa boroom digal walla ragal ci mbindeef lor ba tax ngay def loo xam ne lu wuteeg lu la suñu boroom digal kon nag nañ ñaan suñu borom subhanahu wa taala sirru bi ci nekk suñu boroom def ko ci mbooleem jullit ñi def ko ci àdduna bépp ñaan suñu boroom mu saxal ci suñu xol yi tawxiid ak wéetal ko saa bu nekk saxal ñu ci ay ndigalam ak i tereem ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu yàggal fi Cheikh mu Muntaka li mu bëgg mooy ñu jariñu tey ak ëllëg yàlla na ko yàlla def lépp li nga xam ne yéene na ko te naal ko yàlla na ko suñu borom subhanahu wa taala yeggale wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. الحمد لله الذي اختار لنا شهورا وأياما لا يحصى ولا يعد فضلها نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة لا يضيع أجرها لا نضيع أجرها لا يضيع أجرها ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله شمس الموجودات وبدرها صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه صلاة تتوالى وتدوم فلا يبلغ كنهها أما بعد فيا أيها الناس اغتنموا أوقاتا يقصر عن سعتها عن سعة فضائها فضائلها الجو والفضاء ولا تعرضوا عن عنها فالمحروم من كان عنها معرضا فإن شهركم هذا له فضل عظيم عند الله وشأن وهو أفضل الشهور كلها للصوم بعد رمضان قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم لهذا الشهر مزية ليست لغيرها من الشهور ولا سيما يوم عاشوراء العظيم المشهور فإنه مسحون بالخيرات والفضائل مشهور عند الأواخر والأوائل fa huwa xaqiqun bi an bi an yucazam wa yusaam wa yuxsanu fihi ila almasakin walaytaam wa yutasaddaqu fihi bima tayassara min libaasin wa taam الحمد لله الذي أنعم علينا بإحسانه وحبانا بمزيد فضله وامتنانه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أما بعد فيا عباد الله تذكروا بآيات الله واتعظوا wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum wa ala sunnatihi haafizu qaala ta'aala laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana wa kaana sallallahu alayhi wa sallama yataharra siyaama siyaama yawmin فضله الله على غيره وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع فقيل إنه صلى الله عليه وسلم كان أراد أن ينقل الصوم إلى التاسع وقيل أيضا أراد أن يصوم العاشر والتاسع معا ولهذا استحب علماؤنا أن يصام اليومان معا وقال أيضا من أوصع على عياله وأهله يوم عاشوراء أوصى الله عليه جميع سنته wa qaala abu bakr ibnu al-arabi radiyallahu anhu amma an-nafaqatu yawma ashura wa tawsi'atu fiihi fa maxluufatun bi-ittifaaq nafa'ani llaahu wa iyyaakum bil-qur'aani al-mubiin wa bi hadiisi nabiyyihi as-saadiqi al-amiin يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين آمين allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salaati hayya ala alfalaahi qad qaamat salaatu allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah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 lasta alayhim bi musaytir illa man tawalla wa kafar fa yu'adhibuhu llahu al-'adhab al-akbar inna ilayna iyaabahum thumma inna alayna hisaabahum Allah السلام عليكم